Bonjour très chers internautes de Guédois Info TV. Aujourd'hui nous sommes avec le grand champion la de guerre numéro 2. Le, tombeau de Bogna numéro 2. Celui que j'ai comme j'ai l'habitude de le dire, un leader qui est entré dans l'histoire, parce que c'est lui qui a mis fin à la razzia du fils de De Gaulle à Guédiouaï. Mais aussi, au terme de combat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il est sorti victorieux face au Suisse de De Gaulle. Il a mis fin également à la série victorieuse de Boignan 2. C'est pourquoi aujourd'hui, après le recours qu'il avait introduit au niveau du CNZ, il a été déclaré victorieux suite à, après concertation des membres du, CNZ. Euh, Mbok de ziar avons ñi champion de est de guerre numéro 2 combat bi nga xamante ne na ko digganteem ak Boy Niang moo tax ma ne am na way bu dul fay xale bi nga xamante ne neewoon nañ tey dafa të daal di naqaree manœuvrer moom moo am fu mu egg ak moom ba daal di am ndam ci kawam gannaaw bi nga xamante ne introduire noonu ko daal di na way bu dul fay parce que wane na loo xamante ne ñu bëri na daal di euh, mujjee ici bi ñëpp gis nañ ko naam bu dee amoon na coow mu def li ko yoon may ba tey bi mbeur ñu baye nga nuyo présenté wu wa candu maa ngi lay nuyu di nuyu bép supporter lak dege numéro 2 ak kep ku téwon ci bëss bobu esat di nuyu ak lu làmb supporter Lac dege da yépp ñu ngi ziar ñëpp di leen masulu coono di leen jéglu wat baaxa baaxa baax nuyu ñëpp dal bayu ñu kenn hmm. mbeur avant may ñëw ci li nga xamanteni ni naani moñ fi gëna andi sax ma revenir un peu en arrière mu ci préparation combat bi wa tay bi wa waa mo tay bi metti woon na trop nekkoon na loo xamante ne dama ko téewoon dama ko téewoon ak sama ñaar loxo entraînement yi metti woon na dem naa ba feebar ci mu nekkoon loo xam ne lu ma ñoroon la parce que géej waaye dañoo soxla woon ndam de waaw xam nga combat ma boo koy préparé c'est la première fois ma préparé combat ma feebar ma dem ba feebar ci parce que charge yi nga xamante ne moom moo nekkoon sama kaw ma bari woon moo tax ma doon accéléré noonu combat bi la ci kaw préparation bi ci biir ñu bëri doon xaar nga daal dem fi nga xam te ne mooy à l'extérieur mais finalement mujj loo dem lu waral choix boobu. waaw parce que tey xam nga tey man dama amee nit yoo xam ñu ngi extérieur am na ñoo xam ne dañu am climat bi arrangé na la climat bi arrangé wu la xam la ma woote laajte parce que man doon dem ah man doon dem France yaa ngi dégg ba ma wootee laajte après ñu am lu ñu ma jot a expliqué léegi ñu ne ma non léegi bàyyi léegi ñu yónnee la gars yi ñoom ñu ñëw ñu nekk entraîné ak yow. am ñoo xamante maa ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax ñëw nañ toog jàppale ma ci combat bi bañ pare delluwaat ma continuer sama coach gi guy gii moom macha allah mu jàpp ci waaw jàpp jàpp bu war bi tax na nga xamante ne nekk na li nga xamante ne mooy li tax dew ma extérieur sax jëmmam ci la bokk moom tamit mu entre entraînement entraînement bu war muy coach gi maa ngi koy nuyu en passage di nuyu soxnaam di nuyu ñi nekk ci. olympique club bi yëpp sama papa yi borom taxi yi fa nekk am na sama papa boo xamante ne sama fans la daf may béggee di nuyu ñëpp ah maa leen nuyu en passage waaw. léegi ñu wax ci communication sa communication ci combat bi parce que Lac de Guiers 2 yàgg na bëri ay combat à sa communication Lac de Guiers 2 bu dal bu seree lañ doon gis mais liñ doon lire sa digganteeg Boy Niang Lac de Guiers 2 dafa xaw a nerveux a mer à sa communication avant combat. waaw tey bu ma demee ba dajeeg Boy Niang mu am kaddu goo xam ne wax na ko jëmale ko ci sama waajur bu jigéen maanaam saaga ndey ñu baal ma ci kaddu gi ma ñaawlu ko trop mu ngi taxaw ne loolu amul te barki yonente yàlla moo xam ne boo ko waxuloon ma énervé wu ci jour boobu signature bi parce que waajur dafa fort peut-être moom bu ko xamul man xam naa loolu

di ko wax na prochaine fois na xool ay parole ni muy génnee ci gémmiñam bëri magam Eumeu Sène musuma wax wax gu ñaaw bëri magam Modou Lo musuma wax wax gu ñaaw bëri naa magam Baboy Yékini musuma wax wax gu ñaaw kon donc nay mesurer ay parole mu xool bu baax. parce que ci loolu laay desandi rek parce que li nga wax communication dafa mel ni ñoom da doon jéem a déstabiliser psychologiquement parce que gis nañ ku ci mel ni manager am Bourkhane mais damay ñaawloo bu baax moom tam kàddoom yi parce que nit ki bu waajuram génnee àdduna jaru nga koy tudd ci affaire face à face ak ay yenn réseaux sociaux yi xam loolu dafa ñaaw quoi moom bu ñaanalul sama waajur bu jigéen warul taxaw na ay waajuram jigéen nee na ko lii xaw ma parce que tam damay ñaawlu tamit li nga xamante ne ñu ngi ko koy wax parce que kilifa la parce que bu waxoon wax gu rafet lépp day rafet mais tey bu am na nooy comporté ko rek nit ñi ay fan sam dinañ génn wax la wax gu ñaaw te yow kilifa nga loolu dafa ñaaw trop. waaw nay xoolaat ay parole am daal waaw. alors mbër ñu wax ci manière bi nga abordé combat bi parce que ñëw nga summeeku ñëpp xam ne la déggee deux ànd na état nga nekk au top de ta forme nga ñëw manière bi nga abordé combat bi nga revenir ci. waaw mais xam nga Thiandoum mooy li may wax rek damaa mën bés. bés bu la ñëpp di xaar pour daan la wallahi da ngay liggéey lu wow koŋ ñëw taxaw dama koy wax mais nit ñi duñ mën a nangoo dégg samay samay wax nag balaa ñu ci am dégg-dégg il faut combat bi passé wala ñu dem ay at waxu la dëggee di ñëwaat mais Lac de Guiers 2 liggéey bu mu liggéey ci combat bii nii mu taxee ba sumi xam nañ Lac de Guiers 2 du caaxaan moo koy daan waaw. mais ñu bëri doon xaar manière bi quoi dëgg la ndam li am na mais manière bi ñu doon xaar un Lac de Guiers 2 bu ñëw euh, dekkil comme li nga faral di en 2009. dama doon ñëw pën sa teg sa adversaire lu met jëm ko piéger ci bëree mais gisuñu loolu. xam nga da nga ne bii nii ci diggante bi c'est pas la même jamono googu dañu doon bëgg a suñu bopp bëggoon génn kut ko kut. pour nit ñi xam ne kii moom mooy la de Guiers numéro 2 jamono googu noonu dañ doon rayante mais boo demee ba nga xam ne mbooloo mi topp na sa ginnaaw xam la bésu làmb jooju noonu boo ñëwee parce que boo ñëwee dafa am conseil ah dafa am ay conseil ni mu bëree nii am na ci plein droit bëree ko kon donc ñun du ñëw rek di saax saax suñuy combat parce que ñun yarewuñu noonu dafa am ñoo xamante ne dafa na ñuy bëree ak la de Guiers ni muy bëree du benn. ku nekk ak na nga war a bëri am na ñoo xamante ne comme boo ko nee na xaw ma curuxu ca raxa xaw ma lan noonu waaw moom façon bëreem la. xam nga lan. man damay non loolu sax mënu ko sama su ma ko wax sax nit ñi dañ may rey xaw ma ca raxa ca raxa xaw ma waaw ca raxa ca raxa curuxu curuxu waaw curuxu curuxu ah façon terme yooyu noonu mu génnee noonu. parce que parce que moom sax dégg nañ ko aussi après combat minimum def na lu musul def arbitre sifflé musul suul ay tànkam ngir bëgg ngeen jëflante mais mooy ko lool. waaye boo ñaar du jëflante man xam lu mu doon xaar sama loxo droite jox ma jiw loolu man ma dafa yaakaar ne man aw ma ay mboq Pikine ay mboq Pikine am naa ko fa li mu doon xaar du ma ko ko may la mu doon xaar loolu dama ko dama ko dama ko dëxëñ téye ko sama loxo xam naa li mu doon xaar mooy mel ni kuy dëggal boppam boo ñaa ragal damay. ak a maa mën a fausser calcul nag. mais surtout Cheikh Ndumbaan bi ngay waxal nii. nga ne surtout Cheikh Ndumbaan bi. fausser laa fausser dafa ne un plus un ma <laughs> doo fex égal deux de mais ba tey léegi mbër euh, ci biir ci biir bëree bi. Ah. peut-être mën nga réserver wu mën nga andi stratégie. mais xeex bi bu njëkk dañ doon gis pied gauche pied loxo loxo droite loxo lépp da doon dem ko mu ah. doon benn xeex boobu dafa bar mais léegi la da ngeen di mën a day sànni gauche téye bi bu am ay rumeur sax yu naan yow sa loxo droite da ci blessé. la ilaha illallah droite bi la ñu ragal wallahi barki Seydina Mohamed sama droite bi dara nekku ci fu mu ko dóor mu ko dóor fu. lu tax Guida Ngaas bu gëj a ñëw sa digganteeg nees loolu amateur dañ ko namm. waaw déggoo ma lax dafa am jamono goo xamante ne dañoo bëggoon génn mu jamono ma jamono nees ak jamono euh, ñoom ñoom kii nu sax euh, ñoom yi ki néegi yooyu noonu bokkul jamono nees dañoo bëggoon génn parce que boo xoolee xadaru yu nees bokkul a xadaru booy booy ña. mais sa combat ak seen Sène premier bi yàggul te boobu jëflante ngeen. waaw ah, boobu jëflante ak na mu ñëwee la boobu xaw ma woon ak namu ñëwé la Eumeu sen dafa ñëw ne tay dañuy rayanté bëss bi ma ak mom premier combat ba ñu rayanté rayanté bu métti ba stade ba Père Moustapha Gueye jogné li moy combat yaa ngi dégg mais buñu débaté ba ci biir deuxième mané ko ka ñu rayanté waat mu nax ma. lool ñu ko doon xaar nga andi lu ko boy bi teg ko lu metti kan booy ña booy ña daa may mbokk booy ña déggul ma da doon xaar sama loxo jog nante la da doon xaar sama loxo jog xaar woon pour rayanté ak man dé wallahi ay mbokam duñ ko diggal du rayanté ak man xalaatu ko sax ci kër aduna limuy xaar mom moy limako ma droit motax dawul ñew à 100 mais bu fekkoon damay bayyi droit bi ci lay gëna gaawé ko dafa may daan jël bu gaaw. ba tay ci biir bi ngeen ba mi ñëwaat ñu gis ni tamit au fur et à mesure ñu dem ci combat bi physiquement yow ngay gën di frais adversaire di montrer ay signe de fatigue la mo tax mo bobu lag jëmul battre combat bi daal koy jéxal mom moo téye. boo ñaari woon ay signe de fatigue. mom moo téye bi parce que man ma ko bëgg appel pour mu ñëw lu ñu bëgg ñu dajé ñun ñaar ñu dem. dem ci ba mu jeex boo xoolee sud bi man maa ko créé. sud bi yaa ko nañ ko moom mi ni moo la daw song fàq la tëll am na nu mu ko expliqué. maa fàq man daf maa mën a fàq daf maa mën a fàq ah ñeneen ñi lay fàq. mais bu bu sew bi la la andil. waaye booy ñaar déggul ma li mu doon defee da doon rek. da doon simuler rek moom xam na baax li ma koy wax da doon simuler mënu fi woon def dara loo xamante ne mën na ma yëngal booy ñaa ëpp moo koof ñu ne moom moo gën a nekk xale ba pare koofram bi gaaw a jeex man moo ma moom moo gën a nekk xale moo dàq bëri ñu bisimilah rahmaan rahim xol bi di yëngatu muy taxaw di nooy bay bay teg loxo mi ci kaw kiyam bi nu sax coach sam bi maa ngi nuyu en passage coach sam bi waaw Cheikh ngi lay bëggee di lay jaar waaw yow coach bu baax nga. waaw tudd nga sama coach bi waaye ay gars ngeen nag. tudd nga léegi chute bi dama bëgg nga revenir ci rek chute bi moom nan action bi nan la demee nga revenir ci détail par détail. waaw action bi lenn la ma dama ba ma ko accéléré bàyyil ko gauche bi yaa ngi dégg da doon xaar droite bi ñëw moo tax ma ko doon bàyyi gauche gauche di xaar pour mun a bëreet taw ñëw ma mën ko tëkk ay percute mais nag moment boobu nag moo koy bàyyi gauche mu jékki-jékki ne bëreet ñëw sama kaw ba mu ne ba ma jàpp ko nag ko jàppee ñu daw ci côté saako yi mu commencé dóor épercute ma ba mu dëgg ci ginnaaw gi yo nga ma téye digg ginnaaw gi boo dégloo stade bi ñii ñu ngi yuuxu ma téye digg ginnaaw gi daw kàllam mu sànni ma ma cëppeelu dem taxaw côté bee yóotuwaat digg ginnaaw ba jàpp ba mu dëgër ma xam ne fii du fërëcc ila sud day am walam ñu xam ne ñu def ba ma téye sama loxo droite ba mu dëgër daw kal yaa ngi ba ma sànnee ma tourné mooy jëm a tegal 16 ma bàyyi sama benn loxo bi teg ko sama loxo bi nekk droite bi mu ngi ci ngemb bi. waaw mu daal di surux. moo tax profité woo wër ko ndomba. waaw arbitre sur le du terrain moom moo daw sifflé tàpp sama digg ginnaaw gi xam ma lépp lu ma wax dafay am mu tàpp sama digg ginnaaw gi man arbitre sifflé na mais bu ma bàyyi woon boo ñaa du jóg foofu. moment boobu psychologiquement noo ko dundee comme yaa doon xaar ñu jox la ndam gis nañu woon réaction bi mu def mais après ñu waan da ngeen di bëriwaat. waaw mais moment boobu noonu loo xam nga dafa metti ci xol mais nit ku dul juum moo amul. arbitre juum na bëri nañ mënoon naa ne du ma bëriwaat mais bugguma di yàq làmb parce que sportif la damay bëree après lu ma yoon may bu combat bi jeexee ma tegu ci yoon boobu noonu parce que man xamoon naa ne chute am na bëri nañ daan nañ. waaw bëree ngeen daan ngeen ci nasaraan coow li bari ci diggante géejuwaay ak nga am te ne mooy Pikine ñëpp naan booy bi day jeexal waa géejuwaay mais finalement nga mujj am ndam ci kam léegi avenir de Lac de Guiers numéro 2 dans l'arène fan nga jëm euh, booy ñaakay dafa doon sonal waa géejuwaay waaye baax na comme comme toog na rek na jëliwaat beneen kaasu fonde dem naan ko waaw sama avenir leen la rek moom mooy li ñu waa waa géejuwaay rek mooy roi des arènes bi te incha allah bu na naan fonde bi suukaru ko bàyyil tooñ waaw suukarul fonde bi moom xam nga man mag boo koy naxtaan da koy jox lu neex comme ni la man magam laa mais muy suukar suukaroo sa fonde defoo ci meew defoo ci dara bëgg ma ko jox ma naan du ma ko nangu moo tax ba ma cappee sa mbaam ñam saful suukar ma ne ko yaa koy naan tey tey moom yaa koy naan. kan waaye moo ko naan moom ak Pierre de ñooy naan fonde bi. beneen kaas ba fa des nag. na ko jox soxna si suñu séeréer koko bi naanal beneen kaas bi nee ko muy suukar da ko fàtte suukar. alors bu loolu weesoo avenir de Lac 2 dans foo jëm. roi des arènes lay ñaan yàlla incha bu neexee yàlla nañ fexe bañ a daw rek. te dañ fexe bañ a tegg la dëggee numéro naan dañuy jëli beneen combat man maa taxaw ci porte bi te dinañ ko jël ci kàttanu yàlla ku ku ci jëlul da ngaa ragal ku ku ci jëlul rek da ngaa ragal. bëri ngi défier de. ah mais bien sûr ñoom ñaar xam ne ñoom ñaar bëri na ak ñoom mënuñoo fexe ba leeral dara mais nañ taxaw rek ñu leer na leer rek man buñ ma daane rek nangu naa buñ ma daane daan bu leer ma nangu naa ñii ñëw mën boobaa ma tàggal leen seen juróom-ñaari maam mais ku ma ca daanul moom dama naan la carrément daanoo ma te dafa war a leer ñoom ñoo gën xamante ne bés ba bës ba moom incha allah maa ngi taxaw di leen xaar. daal message bi leer na combat royal nga bëgg a bëri. incha ku ci daan nag laa soxla soxla ma ku ci daanu ku ci daan maa ngi taxaw di la xaar te li nekk sa bopp na nga doon gor nag ñëw fexe leeral ko. ñu taxaw daal di boros foofu tuuti rek parce que ñoom ñi ngi war a sëgg weekend bi tey en tant que yow mbër nan nga gisee affiche boobu. waaw affiche bu neex la ndara doon ah parce que revanche la revanche la Eumeu moom mooy roi des euh, daanoon na ko. Eumeu Sène ñëw war a ñëw jël si revanche am combat bu neex la ba mu solo boo xam ne eh allahu akbar léegi di leen ñaan la ñoom ñaar rek xam nga yàlla may leen wér que le meilleur gagnant waaw ah, parce que ñoom ñaar ñëpp laale na ak ñoom mun ma ndaxaw di leen perturber di leen wax wax goo xamante ne dañuy toog di xalaat. mais techniquement ak tactiquement loo gis côté bëree côté xeex. ñaari ndaanaan la. bële bële bële passé Eumeu Sène nee na daa juumoon waaw nee na daa juumoon kon dafay ñëw wanewaat boppam waa Pikine nañ koy xaar yaa ngi dégg Modou Lo ne day delluwaat buum ca mboy mboy ga dañ ko déglu dimanche ndax xam dina delluwaat buum ca mboy mboy dinañ xam ndax Eumeu Sène dina ñëwaat jël lim moom que le meilleur gañ daal ñoom ñaar ay ndaanaan lañ ay champion lañ yàlla na yàlla defal jàmm ñoom ñaar. bëggoo cee sori ñu bàyyi la kon nga tàggatoo. waaw li may tàggatoo santaat waa Géejawaay rek suñ papa Alioune Sall maire Géejawaay na préparé ñu ngi koy indil coupe bi allah bu neexee yàlla autorité nekk géejuwaay yëpp ñu ngi sant ñëpp ak mbëru géejuwaay yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la sant yow Thiandoum sama doom nday sama xarit géejuwaay info moom macha allah chaque jour que jëfee xoolal sama doom nday la sama xarit la sama lépp gars yi nag nañ bàyyi la ñuy def xam nga ma kii moom mooy loolu waaw mais maa ngi koy béggee ah di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yokk ci kanam géejuwaay info moom ca kaw ca kanam rek macha allah waaw mbokk yi mi ngi noonu mu nekkoon Lac de Guiers numéro 2 euh, gannaaw recours bi nga xamante ne introduire na ko au niveau du CNG ñu mujj ko jox li nga xamante ne mooy ndam loolu waraloon tey déplacement bi ñuy waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci làmb ci waaju préparation bi ni mu dundee bi ci fee yi nga xamante ne déroulé na lépp ci avant combat ba tey yi ñëw daal yaatal ci moom mu doon waxtaan bu am solo une décision pleine di gërëm ñëpp duma fàtte waa diaspora bi ku ci mel ni waa Espagne grand aram da grand Baye di bëggee tamit waa France ku ci mel ni Boubacara di bëggee les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV di sant di leen gërëm duma fàtte suma technicien l'incontournable Issa Koundoul eh, wuy ma sama waa ji am na suñu doomu ndey boo xam ne suñu grand suñu lépp muy grand Baye Góor grand Baye Góor xoolal combat bi da cee sonn lu nekk def na ko man Lac de Guiers 2 bàyyi góor ca Espagne maa ngi lay bëgge sama grand maa la bëgg.